ku perte liggéeyam wala ñu kii rek génn na politicien la doome xaj yi yab ngeen ñu ndayam foog ñu def répression bu tàng ci seen kaw ba ngeen xam ne ñun am nañ fulla du kum neex jóg def la neex ñun dañoo am dëj tal ñu may mënoon nduur fay na lijjanti góomam boobu fajunu wér na bu yàgg mi ngi foofu di duule mi ngi foofu toog biig su guddi lañ ko dóor pansement benn góom la góom góom ay neer daggul dara daggul benn góom pansement lañ ko defal sparadrap kon xam nga ni kooku gi sparadrap dóor nañ ko sparadrap ba mu dox ma nga fa tëdd ñu muñ muñ ŋaañ ŋaañi ñu ñu ñu ñuy fooyee xelu sénégalais <laughs> sa ko ndam nag sa ko ndam katt la ndayam laa la wax yéen journaliste da yéen ñoo gën nday doome xaraam yi buñ ñu rey doo leen condamné kenn ci yéen buñ ko laale ngeen génn condamné dañuy kat seen nday yéen ay journaliste ngeen ngeen naan sa condamné seen condamné nday bu am weccet seen condamné nday bu ñu denc ay weccet ngeen war a ne condamné wu leen ko non ah, non condamné condamné yéen da ngeen foog ne yéen ñu gën nday wala lan ngeen génne nday ci sës yi carte ndayam yi école yi ñàpp ndayam yi ngeen génne mënal duul mën a fen dajaloo seen carte nday association de malfaiteur foog ne yéen ñu gën nday dañuy carte seen ndayam ah. yéen da ngeen xam dëjëw ndayam ku ci jóg na si dul naa li si si carte leen ndayam laa la ñaari question yi baax sax mën leen ko posé nit yi ngeen na ay dul naa li xanaa foofu ngeen nekk dul naa li doo leen cottu ndayam ku la dàqal ñàpp ndayam fen nga ne ma kilima dul naa génnee ci seen école yi ñàpp ndayam yi ay école Abdou Latif Coulibaly ay sesteeg muuteeg duuti école yi ñàpp ndayam lañ génnee ku ci nekk taxaw di duul naan journaliste kenn du ko laal ku laal léegi nag journaliste lañ warta laal mais Mollah Morgun nañ ko war a laal quoi hmm? duul naa lis kenn war ko laal foo foo ko bindeen kon sénégalais lañuy la laal quoi hmm? kon yéen kenn war leen laal daal ñun sénégalais la ñuy laal ñun ñooy kumba amul nday yéen daal kat la ndayam laal wax ngeen arrêté seen ñëpp ndayam nekk nit gënu leen ñu nday gënu leen ñu baax ñu leen gën a katt ndayam yeewu fuuf gën leen nekk nit question yi baax mun leen ko posé dañuy ñàpp lu ndayam dajaloo ñaari golo yu dajaloo ñett ñiy xeesal simpi tampa ñiy xasaw xund ñiy seen poq yi di seen coq yi di di di gilli ñu taxaw ndayam naa na dul naa li sa condamne seen condamne na nday seen condamne na nday bu am ñaari weccet yéen reewu leen da ngeen ñoo commencé du kattulu ndayam nag affaire bi day ëpp ñu lijjanti ko léegi ñun suñu biir la dama ne na jóg katt ndayam benn góom la am na jóg dem na ñibbi na ñibbi na ñibbi benn góom la am ñun ñi ñu agressé ñi nekk ci kaso yi lañuy la ñuy lijjanti ñi ñu agressé ñi nekk si bàmmeel yi la ñuy lijjanti benn góom bu ndaw la am esparadra moo ko faj esparadra lañ ci def mu jóg na katt ndayam na dem ñoonam kan daan na wuñ lëfal ndayam dañoo war a ñëpp sa ndey ba daggate la ñaari parti nga naan ay condamné doomi xaram yi kat sa ndey mun Ndiaye moom buñ ko reyee kenn du condamné Pate Ndiaye buñ ko reyee kenn du condamné Issa Thioune buñ ko reyee kenn du condamné Modou Fall mu ñu agressé ginnaaw kenn du condamné Pate Cissé mu ñu condam mu ñu mu ñu agressé Liberté 6 kenn du condamné Fat Diop bu ñu agressé nangu saagam jamate ko kenn du condamné dañuy kat sa ndeyaan ah yéen yéen yéen ñu gën la yéen yéen a nday nday yoon yéen yéen a ñan yéen bër bërkaat di dem ba léegi maa ngi wax ci kër Mbay Fall ay xale yu ñu fa rey kat seen nday ay sat ay Aminata Diop Fall xaw ma ay Sata Diop Fall ak doomu xaraam yooyu noonu biddu xaram yooyu noonu ay Aminata xaw ma nan man dañoo kat sen nday seen tur yëpp nuroo Aminata Diop Fall ay Sata Diop Fall Aminata Fall Ndiaye ay Sata Bun Fall seen cort nday ñaari xale ay liir yu rey wax naa ci ba tas ñu dem jàpp seen njaboot yi jàpp seen papa yi jàpp xale papa yi xale yi jàpp famille bi yëpp tëj jàpp jigéen yëpp tëj may chaque jour may wax mosu leen ma katt ndaayam jàppale bu ngeen génnee da ngeen fen benn yoon la ñuy génn Seneweb Seneweb fen fen yi ñaaw fen yi ñaaw famille boo xam ne xale bu jigéen bi six mois de prison ferme un naa ñu tëj ko donc six mois de prison ferme mi ngi ci kaso bi Seneweb génn bi bind naan ay di wax waxi dof njaboot gi dañoo jooy est-ce que xam ngeen yéen li ngeen ni ñuy causé yéen yéen dañuy kat sa ndeyaan ah. yéen est-ce que xam ngeen li ngeen ñuy causé mais famille yi gars dañ leen di rey sosal leen tiijal leen ba pare yéen ngeen leen di fenal affaire boobu njabootu ndaw si dafa jooye dañoo jooy jooy jooy ba ne ma lii lan la sane lim ñu bindal nii la ñun sañu doom ñi ngi nii sosal ko ñaari doomu aadama ñi ngi ci kaso bi nii ku jigéen ak ku góor te dañ leen sosal ne lan lañ lan lañ ma lan leen leen jàppee nee nañ yow dañ maa yónnee photo photo dañ maa ne foto lañu wax chaque jour maa ngi koy jooy Sénégal bu mu jegeen génne da koo fenal sosal ko ba jóor fi délibéré délibéré boo xam ñoom ñi ngi ci kaso bi de moom nee na délibéré la xaw ma lan mars xaw ma avril te ñoom ñi ngi ci kaso bi ah xale ñi ngeen jàpp di fenal yéen yéen yéen foo leen ko teg yéen balaa maa dégg ngeen ay jour duul naa liste ngeen mais yéen foo leen teg ñi ngeen di fenal foo leen teg ku taxaw ngeen jaboliser ko sosal ko ku taxaw doomu aadama yi yéen a leen feral yéen a leen tuddee force spéciale yéen journalistes yi yéen a leen tuddee force spéciale yéen a leen tuddee force tranquille yéen a leen force tuddee force commando dama ne yéen loo leen am sénégalais bu ciy jooy wala naqaru doome xaram la man maa ko wax sénégalais bu leen fekk ñu noq leen ngeen di jooy doome xaram la parce que ni ngeen nit ñi teg sénégalais ngeen taxaw di ñu seetaan man awma benn picc ci yéen awma benn picc ay vrai doome xaram ngeen yéenay fenalaate yéenay sosalaate yéenay chargé waate benn innocent ngeen di jàpp seen journée yi bind ko def ko criminel fekk innocent la saa yi ñu jugé kii deful dara te sosal ngeen ko fi sos yoo xam ne ni ngeen dafa imam Alioune Badara Ndaw ni ngeen ko rayee ci sos François ko ni ngeen ko rayee ci sos Didier Badji yéen a ko sosal ni ngeen ko rayee ci sos Fulbert Sambou ni ngeen ko sosalee ni ngeen ko rayee ci ay sos sos rek ngeen di dundee yéen ñu jàpp ab góor ak ab jigéen fanal leen tiiñal leen ne dañ maa yónnee benn photo def leen six mois de prison ferme six mois de prison ferme six mois de prison ferme ñu ngi ci kaso bi nii ab jigéen ak góor six mois de prison ferme ci lan da ngeen a yónnee benn photo Mollah trop fâché même <laughs> il faut être fâché ah parce que je vis dans un pays de merde un pays de bordélique oui je vis dans un pays de merde qui s'appelle le Sénégal des... ouais, ça m'énerve des tueurs des agresseurs un gouvernement criminel qui a tué oh, au Sénégal Ah, au Sénégal. Oui. Ok, je pensais ici. Ben ah oui. On est mort. Ah. la merde. doomu kat sel nday yi rey njaboot yi génn naan dañuy victimisé wu doo leen fi ñëpp ndayam victimisé wu danañ lijjanti seen nday benn par benn fenkat yi ngeen doon soskat yi kon dam ne wuñ cortu ndayam dañoo waroon ñëpp te ndayam dagg te ndayam laa la wax musul condamné lu metti sénégalais sénégalais bu ko condamné naafeq nga musuñu condamné ñoom musuñu kondam seen lu ñu leen di teg Maïmouna Ndour Faye musul kondam ne lu ñu leen di rey ni ñu leen di daggate ni ñu leen di jam ni ngeen di dee dee ñaaw nu ñuy jàpp ni ñu leen di sosalee ci musu ko kondam ne ngeen di condamné góomam googu ah ab góom ngeen koy condamné yéen yërëmu leen seen boppu yéen ngeen nekk ci dëj naa da ngeen di xooli kenn kuñ jam ci loxo mus ngeen gis loolu ab kër ñu rey papa ja wala ñu rey yaay ja ngeen nekk ci dëj naan da ngeen di xoole ji kër goo xam